Euh, yële kon bato bi mu ngi koy andi yeneen yi euh, am na buñ ci andi bii man lañ ko may incha allah maa ngi ñaan yàlla kilifa ci réew mi yëpp ma may leen ci waaw bëgg naa kenn ku nekk ci taalibe même boo ko mënta jàng na nga ko wut muy sama kóllëre ak yow bu ma nekkatul àddina tamit li may wax xam naa ko xam naa mooy àddina gi dara neexatuma ci neexatuma comme yéen mot ngeen nii euh, lii doy na ma xale yi fi mu nekk ñoom ñëpp seen xol tooy na bu dee seen sago la ñoom ñëpp ñu dagg seeni at jox ma waaye lii la yàlla noonu tàmbali ngeen xam yoon bu ma fi nekk ak bu ma nekkul yépp xam ngeen yoon li ma bëgg xam ngeen ko li ma bañ xam ngeen ko ngistalu ma ci dara tey mënoon naa nekk ci gouvernement bi topp ministre yi rek waaye li may am ci sama néeg doy na ma man bés bu nekk sama dépense mooy juróom-ñaar fukki junni trois cent cinquante mille weer bi muy dix mille dix million cinq cent mille président mënu ma ko jox benn weer la ma koy jox ñaareel bi du ko jox te maa ngi tey xablul wusul di sama course yàlla mi ma koy jox lii bu ma doyatu lu may doy li may dem ci bureau yi di leen ñaan naa toog ci kër gi def salaatu ala nabi naa ziyaara ji bàyyi ñas ñaan ko naa dem ñaseen lew na ñaan ci barke maam alaaji abdoulaye Maodo malik naa dem Dakar siyaare ji Seydou Nourou taal li may dem ci bunt gouverneur bunt préfet naa ko wax ci yàlla kon ma am ko te kenn du ma sikk bu fi kenn jóge dem di ŋàññi keneen na ngeen fonk tuuba fonk Medina fonk Niassène fonk Kaneen Medina Gunaas jaamal te kenn mënu ko jeexal kenn ku ne fa nga jële wir dina nga ko fonk.